nun te ala yin karafo banku ma ah allahu akbar pay leer doomi rew mi luñ bëgg rak tak dañuy tok bu dé xaalisang fa mom ñu bëgg liggéey suñu rew mi rak tak laa wax bés bu ma jëlee réew ma mënoon ah sama nopi, sa parce que suma ideas yi dañ koy sàcc parce que ñu bëgg taxaw élection jamono bi da bari te man mi mang ci biir nay leer waaw adama baro ñëwal nga toog si media bi inin gambia dingoli kacha adama baro ini la muso al momo rendi mimbo mimbe masakunda to doko la le fintina al ni gambia dingoli si alini ni gambia dingoli kacha ale tribalism bondi mulla gambia banko kan ate wok la adama baro du wok fintina ini mole diam ni man nano ni man tano GTS ta state house eh, fenko eh, na, na state house fenkoo fenkoñinto platform oto si adama baro yo facebook live ke soo buggee sama ñoo coordinate ko baro nga def facebook live nga toog nga waxtaan ak askan bi ngeen ñun laaj ñu luy suñ problème boo leen xamut yéen luy suñ problème laaj leen ñu ko ñun dinañ leen ko wax because ñun jooy nañ ba sonn luy suñ problème faalewu leen léegi dañ bëgg a ngeen bu dee yéen yéen bu nekkee ne yéen doo leen ay dëmm doo leen ay nooxoor doo leen ay niti iblis doo leen ay niti firawna yéen ngeen ne yéen nit ñi ngeen fa nekkal Adama Barrow ñëw leen ngeen ubbi channel bépp channel boo leen bëgg dem dem leen fa sax waaye rek meeg soo leen ngeen ubbi line si doomi réew mi kool wax leen luy seen problème doomi réew mi wax leen ñun luy suñ luy suñ problème ak ñun luñ bëgg ak lan lañ bëgg a dëkk bi dox parce que yéen doo leen déglu nit ñi ñun dañuy wax ba sonn defe naa doo leen dee dégg dégg xaw ma da ngeen dee dégg ba pare doo leen ñu bañ a wuyu xaw ma waaye lii moo war a am Adama Barrow ñu ne ñanta ka kenn naatool man tara jee naafiki yàlla alman tara jee suuñaaroo la alman tara jee jeenoo doron na jee alman tara jee baata diyaar doron na jee ah ah alfintinaa linkam be dingol ye diyaama mu ne be kering faa tolla baa fututa moolti ba fatol fisiyata moti bang fo banko atol drone bar atol drone nyanta ka balu wo banko kambang fatol le drone nyanta ka enjoymento ke wo banko kambang andal mama nyol mam bata wo banko ka ntol dodol mino yanko mama nyol fato wo banko kanne ntol bin ntol be halko nin toro kon c'est ça ñinam to ñaata adama baro bara lon ka te woti lad a lon ko lung be lung baro abe ne baro bubu jiragoti ma foye ba baro mol ma foye ba ala man koronto de andun tol fana man koronto mbe sirin drom hade mbe sirin katu ko ngalo ne ko duniya se diya nyaw nyarande lumbe sila ibe fala le baro fom folo le betale nyala ba ba lumbe sila isen taraji adama baro ase me nyaw nyay fanan sita me taralaji ñinom toñaate al fintali toña fo baro e gambia atol min ka finti dun janka fo ko baro is awa baro baro is awa baro alle albe minto atole mol dun yimman toro kon atole mol dun yimman toro kono bayda alman son ka tonya sembentu yendi alman son ka tonya fasa na man ke si fatam fasu koti albe no wodron sembentu yendi ka na wo gambia banko ka wole mol dun bela ni me ni kulan ko hod malen ko wa ha loloy e deug bi atole mol tora anu ni moolu ye ali toolu fo doroŋ ali ko mu tanoo le ti kaari maŋ lafi moolu la kaari maŋ lafi moolu la kaari maŋ lafi moolu la bari a tolu lom a tolu lom gambiya a tolu lom bari wo maŋ ke nuŋ teŋ de bari wo fanaŋ mu moo le ti nu miŋ ye a loŋ ko a ye hakkiloo soto anata fo gambiyano le ko mano ali makoy gambiya din kurugol alborta altata advantage jusa kan baro he, he, he was so vulnerable altata ali advantage jus baro kan ka adama baro ni moltemo ɓe tiña fo baro felanti mbi moɓe ya kon bare baro fongo ma saabu atolle ya saabu din kurugol gambia den kurgol atol atol atol anu hani bi albe derin tek alkamira ko ko mantara kiri albe lorin dula kilin dron man sa munuma garu wale sa lisa du garu wale man limay wax dafay leer yen udp nay leer waaw man laaxalaaxa bokku ci suma système bi dama si allergique muy leer damay wax dëgg rek te yàlla tax lii la yéen a ñu la ba pare yéen a ngi nii seen parti bi yéen a ngi nii seen parti bi daal moom mooy loolu sen parti bi mu ngi ni am am ngeen problème te do leen ko wax Gambian si bo leen dof lo nak ba jël sen carte euh, dabo nee dañ am problème Gambia problème bobu nak moy ne kuy taxaw dabo du taxaw dafa màgget ñi ne anti aju Mariam Seck tay na ma gëna anti aju Mariam du mëna dem ak ma ko bëgg nak fi la ko def suma biir xol bi xam ngeen ko la rek la suma laal ma wana du dara nag ma wax li ne sama xol ñi ne Talib Bensouda ñi ne mamadou sabali ñi ne rohima alek lo ñen tok fofu non ñi dof dof lu sen kaw tok len rek yéen ngeen toog tek ñoo ñoo di gérer yéen billahi man udp atol bu pare albe ku fana nekke kam baba albe ku lekke ka usen dabo which i don't like udp ken xamewu leen loolu UDP naka ngeen bu ne tok di disrespect nga xamantene moy Ousseynou la ya dabo te en ngeen ne yeen dabo moy sen leader dabo da ngeen koy deya yeen ni ngeen mel ni yeen ni ni ni ni ngeen mel nii seen biin kan moo leen di jox paat di réew kana di jox réew muy paate bu mën a doon nag même APRC sax dama ko wax mu leer waaw même APRC sax dama ko wax mu leer fii daal moom dama ne ñaabe kunkono korosiro la ñaar felenti njambe korosiro la korosiro waaw daa daabo moom ñëpp xam nañ ne mënut te yàlla moom daf ko nattu ne sax du mus a doon jiit du mus a duñu mus a jiite parce que dam na ba jege ba nekk vice président mënut jeex na ñii ñëpp mënuñ nañ leen waxante dëgga buñ leen nax nag UDP bëgg naa ngeen toog yéen neen seen biir ngeen laaj leen du ma leen wax nag lépp nag waaw waaye toog leen seen biir man suma waxtu wax jotagut su wax su ma taamee politique dafa des waaw dafa des su jot su jotee di ngeen dégg luy tàkkate du fay fii fii fii UDP dañ am problème gis ngeen nu APRC amee problème nii la UDP amee problème Adama baro nag si li la nekk di capitalise nag pour war a pour élection bi di ñëw mu xool nu muy munee toog sàcc nañu benn mu yaakaar ne dina ko jik dootu la jik Adama Barrow nga defaa ñu ko ñaari yoon waaye du ñetteel muy yow muy Macky Sall ak képp ko munti di doon dama la ne revolution time la ñun dañ bëgg am suñ bopp bëgg liggéey suñ dëkk yi comme yeneen dëkk yi nuñ koy defee comme ni ko Sénégal di defee nu ko Mali di defee nu ko Ghana di defee ni ko Nigeria di defee ni ko yeneen dëkk yi di defee ñu ni noonu lañ bëgg a liggéeyee suñu réew mi kon nag bëgguma kenn taxaw nag ñun suñ diggante ak suñ freedom ak suñ liberté loolu moom ku taxaw ku taxaw suñ kanam rek ñu nag yéen la loolu moo tax na may génn di leen wax dëgg gis ngeen naafexa gi moo tas APRC naafexa gi ñu nekkee nii moo tas UDP naafexa gi ñu nekkee nii moo tas eh, eh, eh, nguuri Adama Barrow mii si boppam parce que dafa tas ku leen ko waxul dinaa leen ko wax dafa tas tas tas tas tas comme sabar bu tas ñun Gambie jamono jii foofu leen toll moo tax ma ne dama bëgg a ngeen réfléchir ngeen toogaat ngeen jilaat seen pen and ngeen toog di bindal ngeen calculate everything li fi jotoon a passé depuis Yaya Jammeh dem ngeen xool ñii ndax mun nañoo yore réew mi wala munuñ koo yore toog leen ngeen laajaat ko seen bopp man de dama def suma research def suma saytu def sumay gestu ma xam ne ñii munuñ maa ilif munuñ maa ilif munuñ ko munuñ ko parce que jamono bi dafa tollu foo xamante ne dafa dafa dafa require nga jànga dafa need pour nga jànga nga mun a amee réew da nga need jànga xam nga ñun jamono googu suñ maam yi dañ bu buñ yaakaar ne suñ maamati maam yi jàngoon dañuy naa suñ bopp de suñ maamati maam yi dañoo jàng ñoom Alburi Njaay ñoom Seeku Ture ñooñu dañoo jàng yeneen ñee dégg ñeneen nag ñeneen jàngis yooyu yooyu jàng moo tax ñu mun a yore réew mi jàng moo tax ñu mun a xeex ak tubaab yi ba jël seen independence yéen ngeen yaakaar ne ñun suñ maam yi buñ jàngul woon wala xamuñ woon dara di ngeen yaakaar na ñun tey dinañ toog fii man sax dinaa toog fii di waxtaan ak yéen est-ce que dina am du mën a ne parce que maam yaa liggéey maam yaa ko moo tax ñu yegg si fi léegi ñun buñ liggéeyut suñ bos pour suba suñ jaboot yi ñen a koy liggéey buñ dee dañuy nekk ci baamel bi jóg ñëw liggéeyal ko suñuy doom yi n'est-ce pas léegi lañ ko war a liggéey léegi lañ ko war a def lii mooy coow li APRC tas na Mama Kandeh partem bi dafa tas muy GDC lu leer laa leen di wax nag dafa tas comme nu APRC yi tase ñi demee ni ñi demee ni loolu moo fa ne yéen a ngeen dégg li ma leen di wax UDP tas na ne sabar bu tas ñi demee ni ñi demee ni gis ngeen ko yéen yéen a ngeen gis seen plateforme yi li fa xew not plateforme sax because léegi duñ dee wax that much because dañ confuse dañ soona stress bi moom fu ne la ne stress bi fu ne la ne yéen a ñu rogganteel Adama Baro bambaane ko isin ñu ko ba mag Adama Barrow nag léegi dafa sax ay béjjén nag da leen di kuy bàyyi leen mu kuy leen mam saf loolooy dëgg kon suba bu ma leen woowe waxee ne ñëw leen ñu def coalition ñu teg ko si dëgg ak yoon ak jëkk ak teraanga da ngeen bañ ngeen yaakaar ne ñun ñoo leen di ñëw fekk si parce que lan la da ngeen rëy man maa ko wax dafa am ñu ma jëflanteel moo tax may waxee nii de waaw parce que lan la dañuy da ngeen rëy xam nga luy rëy bëgg leen daal kenn fekk si leen Eh, bëgg leen daal ngeen ngeen fekk si nit yéen da ngeen bëgg saa su ne ni ñuy fekk si leen booba jamono dafa jeex booba jamono boobu dafa jeex dama ne boobu amut parce que dama xamante ne bu coono di am du du APRC rek mooy sonn du APRC rek ay sonn APRC dinañ sonn UDP dinañ sonn ñëpp ay sonn parce que ñii ñëpp Gambien leen ñii ñëpp Gambien leen ñun ñëpp doomi réew mi leen waaye daal ñu ne leen coalition ngeen toog di xaar. coalition ngeen toog di xaar ubbiwu leen buntu ñu toog ubbi leen buntu yi ñu ne leen ne coalition a ngi nii ngeen amoon opportunité xam nga bon weesuwut lii doomi réew mi bon bon weesuwut lii bon weesuwut na yow danga bañ danga bañ da bañ ay nit bañ ay nit bañ leen ba jaamee réew mi sax yow nga bañ ko lii mooy dëgg bi lii mooy dëgg bi de te man ragaluma kenn nag gis ngeen man lu nit ñi di laam man duma koy laam-laame dama koy wax waaw xam nga fii boo waxee sax te woowoo tur sax xam nañ wax ji fu mu jëm loolu moo fi ne nko nte yaamatul rek kat yaam ntol jaw yaata len jaw jaw yaata fo jaw yaan na kayroo fo nga ñeneen tol batant ñeneen mool batant ali adama baro natina baro natina kake president wote alfongo ya lana ko adama baro mano billahi wallahi talla nti mbuka mo fasa siyo kama siyo mbuka mo fasa wala nka to nyale fasa ali ya lana ko baro mano ali ya lana ko baro man karan ali ya lana ko baro to kutute no la baro to fenke no la bar konnante ya kadun ko atul ko yaya jame fo se fa dron wo gambiya banko ka I told the majority of UDP matolema because I told them I told I told I told Lebaro Cindy told Mambaro Cindy because Aliya jame kone alkofo jamme se ek fadron wole mol do nyina bi jamele atata la mantara equatorial guinea wobe domoro la alafta fingo fena ba soto kane at this moment me bata min kono bi fo yaya jame ya kala mutaleba a hena guinea equatoria tolle ɓe ñimbata kono yaya jame henaɓe sirin tolle ɓe ñimbata kono nani mbabañol gambia ni man toña fo ɓe faniyale fulañoye ali ko fo jamme si tadoro dama leen di fàttalil dama leen di fàttalil parce que dañ fàtte dañ nekk di jël yeneen yoon dafa ñu fàttali wante ali ko fo jamme si fa jamme tatamɓe bata kono ali sita jang kumati jalmam min fo dool ko foñinkoole ko hali pare masgré fo ɓe siyalale bamba masuñol dool ko remote controlol ɓen tollo bulu ga banko tale ga banko tale aliyamira bankoɓe ka wala ñama ba ali wala mira al ñantale ka ritono ali hakko boye gambiyanol ma ndeyama turere kañum faaliye nalma woke ñim banko al nenata marala yalo yajame e ñim faaliyene de according to e kal kam fatale namanamo yajame tuloma de baran kolo ko tonye ndiro man betiya aliye molle tonye andu molle fata pour molle fata wo banko ka atolla mararo kon al fenti ali ha ko boyndi ali gambian jamal tora ka don ko ali tonya je alman son ka tonya fo ali tonya jele alman son ka tonya fo ntel kolo ko nte kolo ko nalmo finti ali ha ko boy wo banko alta maral atol wo mol minul bi jeli atol nga nyolo ne ko nyolo kunda ton dir nyinen carte wot fo mo kote ndo se bonan UDP kananan ka kefenti de bare atol won teng ka ka ka, ke like a president or a party leader or something bare atol won ten ni ala kiti tala nakata ko tonya wala be sabati la wo banko ka alba ak soto la le ban ni tonya man sabati alto wo banko soto la te fana ne nyim fali andu ngalandi dula senengol to fu werla ko tek parce que attitude yu may gis ni jikko bii may gis nii ñun génnaguñ xam nga lu ñu lu ñu dese na Sonko jël réew mi rek comme noo ko waxee ñun su ko defee ñu wax ak xale yi nga xamante ne ñoom dañoo xam àddina bëgg jàng bëgg seen réew waxuma ñi nga xamante ne ay dig ay bëgguma sax di oo seen tur pour won leen rek man ñii nu ma paree ñoom pour oo seen sax bëgguma ko waaye xam nañ seen boppa ñu ni neen xamante ne di ñun ñëpp bi leen wax ju yegg dafa ko moom lii mooy coow li foog ngeen tuub foog ngeen jégalu rëy baaxut nit waluroo rëy lii yëfi réew la du war a du yëfi quartier du yëfi kër du yëfi Touré Kunda du yëfi Daba Kunda du yëfi Kamara Kunda du yëfi Sanyang Kunda lii is Gambia lii is lii pour ñun ñëpp la soxor moo ñu dugal ci lii ngeen xam ne baro mënut ngeen ne doo leen ko wax ne baroo mënuloo ngeen toog ci kawam ngeen noot askan bi jël suñ brodas yi nga xamante ne ñoo nekk si military bi ngeen teggi leen wàccee leen di fa jël ay ni ñoo xamante ne jànguñ jonguñ xamuñ dara because lan la because lan la soxor ak bon because of lan soxor ak bon ak bañ nit ñooñu noonu muy joolaay ngeen wàccee leen fa dem jëli ay nit ñoo xam ne xamuñ dara xool leen tey si joroti bi nu mel si biir réew mi tey ku ko waxut wax de ku ko waxut de dinaa leen ko wax xool leen réew mi xool leen réew mi xool leen réew mi soo waxee ñu ne joolaa le siyata security ñinto joolaa le siyata security ñinto fo joolaa doro nebe gambia fa tolter falman right soto na ngabe na ko atol mo gambia dingol leti you guys are the majority so how comes that if you guys are the majority munatina in the military alman keno je the majority thing so bila nata atol UDP nkol I told you empower I told you empower all because atol le biji yaya jame bota banko kan atata exile before yaya jame fongo bitala kulubali ya ku jamale be kere nono gambia banko kan atol ya mena ko banko se bon because alman tonya le fo adama baro alu hani bi albuka son tonya fula adama baro tonya mi yalon ko baro nyanta ko dunga tulu ho konole ando atol fanang, alye tonya fo al damangol tema because Tonya, ni ma ma foddulaata drunk day tas loolu mo len dal nak loolu mo len dal man APRC la de waaye nak bu APRC deful lu war Yaya jame muy parti borom parti bi sa bu deful lu war dama ko ko de wax fi ngeen deg ma waxatuma laa nag beneen parti te lo xamantene mbiri rew la duñ len ko nango wax ñi tok fi diko ka fecha tacho fecha ah di dem di ñu indil ay stupid project yoo xamante ne kenn xamul loolu loolu ñu ñuy dem di indil fii ay machines yi kat ay li doole leen ñu indil ay computer doo leen tubaab yi ñu indil ñu ay computer ngeen ubbi ay centre xale yi di dem di jàng di fa def leneen ngeen toog yéen bare atula ah. ba tey de ma ñëwaat si yéen rek ba tey fu ma toll foofu laa toll lii Gambia mooy coow li fa fii raxasuñ ko du dem man xa ngeen ragalu kenn su ma dee man da kay dem suma bàmmeel ni mu faatal ku kil pet naka buroo ko